xam nga waxoon nañu feeñ ñetti xaaj feeñ maadi feeñ mudaari feeñ am te nag si ñu ñëw si feeñ la bu mujj bi mooy feeñ am feeñ am na jàpp ne moom dafay sukkoon mujj gi dafay sukkoon moo feeñ bi sàkk nga def dara ci jamono ji ñëw alhamsilati yi mooy misaal il ab fawal bil kurati si bal bi il ab fawal fawal feeñul am lay ndaxte daf lay diggal nga def dara si jamono bi ñëw fawal waxul ilaa second second dana yalaabu dana foo wala mu ngi foo loolu xam nga am ne wala laayba foo na ba pare mais bi ilaab la foowal ateem leexalal xetta ko sa muus loolu faa am la ndax daf lay digal nga def dara nazif setalal siyaabaka sa yére mu am la daf lay digal nga def dara si jamono ci ñëw nam nalawal mubakiran di aji teel loolu pe feew nañu fi waxagum yëpp soo xoolee ehm, soo xoolee feew nañu fi waxagum yëpp mujj gi sukkoon la mujj gi sukkoon la kon feew moom amri dafay sukkoon dama xal defal naa ko fi sayri si dox ajit rafetal madara toam mi sàqal mi ñam kon feeru amri mujj gi dafay sukkoon mooy feew bi lay digal bu lay digal dara am na nag moom suñ sarf suñ ki moom nag ki mu jàkkaarloo rek lay waxaat comme suñ leen koy nii ñu jàkkaarloo rek mooy demi juróom-benn demi yu mu rek mooy amta anti antuma antuma antum antun yi rek lay waxal waaye bu fekkee dafa bëgg a waxaat ki ah, moom almutakallim mooy kii wax man dem naa man maa ngi dem nii su ko bëggee wax dara ñu wax moom koy defee si kanam li'raab bi nag mu ne ilaab ilaab amri mabniyun ala sukuun ilaab fi'lul amri la jëf jëf buy digle la buñ ala sukuun atim jëf ju jëf ju digle buñ binaal ci sukuun nazif setalal nazif sonl amri mabni al sukun nazif jëf ji digale buñ binaal ci sukun nam nalawal nam fi'l amri mabni ala sukun nam euh, jëf ju digale buñ binaal ci sukun tama al defal nang tama mabni ala sukun fi'l amri la buñ binaal ci rafetalal ajit fi'lul amr mabni ala sukun aji jëf gi digle guñ binaal ci fatha kon yu yëpp ñoo bokk leera ñu ci sarf bi nag wax naa leen juróom benn demi-heure ñu fi'lul amr di sarf ñu jàkkaarloo anta ak di antuma antuma antum antun ant ki jël fi'lu izhab wala at'im leeral anta at'im leeralal anti at'imi si yokku yaa at'imi leeralal antuma yi ñaan góor ñi at'ima antuma yi ñaan jigéen ñi at'ima leeral leen antum yéen mu góor muy bu nga leexal leen antunna yéen mbooloo mbooloo mu jigéen boo jàkkaarloo atihim na leen borom tamit soo jëlee fenn izhab noonu la bu fekkee ki nga jàkkaarloo ko góor izhab ku jigéen izhabi ñaañu góor izhaba ñaañu jigéen izhaba ñaañu mbooloo mu góor izhabu mbooloo mu jigéen izhab na bu fekkee da nga bëgg jël dem mu dëkkali mooy ana comme maa ngi dem wala maa ngi leexal yooyu wala wala alxaayib mooy ku fàggu wala alxaayibat boobaa dangay jël fi'lul mudaari'u ba yokk si laam guñ kasara sukun mujj comme suñ jëlee fi'lu yazhab boobu doo mën a jël fi'lu yazhab yazhab ngay jël fi'lul mudaari'u boo xam dangay dangay euh, kasar di yokk si laam goo xam dangay kasara danga koy kasara sukun mujj fi'lu yazhab suñ ko jëlee soo bëggee wax man dem naa man maa ngi dem kon li li azhab li azhab mooy maa ngi dem dinaa dem lii soo bëggee soo jëlee soo jëlee naxnu li nazhab mooy nañ dem nga jël huwa mooy góor ga nga bëgg a digal mu dem li yazhab dana dem jigéen ko fi nekkul لتذهبي لتذهبي لتذهبي ñaani jigéen ñu fi ñaani góor ñu fi nekkul li yazhaba ñaanu jigéen ñu fi nekkul li li tazhaba boroom góor mu fi nekkul li yazhabu boroom jigéen mu fi nekkul li tazhab na kon noonu ngay def fenn muraari ngay jël rek yokk si yokk ci laam guñ kasra fataha sukun muñ soo def noonu ngay def di mën a digal ku fi nekkul wala wala ki kii wax mooy moom digal boppam wala ñun ñuy wax waaye bu fekkee da jël fi amri moom ñu nga jàkkaarloo rek nga def mooy anti antuma antum antun mu ne albaxsu lii mooy gëstu bi alkalimaatu ura baati njëkk yi fi am solatul mutaqaddimati si misaali jiiti afaan ay feewle baat yu njëkk yi soo seetloo mooy baat yu njëkk yi yëpp si misaal yi ay feew lañ ilam nazif nam tam al ajid yooyu ay feew lañ li ànd na képp minaas ñoom yedul dee tettal ala usuli amal ala amal si am ak jëf fi zaman xaasin si jamono bu jago nee na nattu ñoom ñëpp dañuy tettale si am ak jëf si jamono bu jago jamono bu mu jago bu ne mën am ma jëf bii ñëw mustaqbal wa isa tadabbarna buñ seetantalee hasil af'aal yi la feeñal wajadnaa dañuy fekk almutakallim aju wax fi kulli minaas képp fi kulli ci képp minaas ñoom yatlubu mi sàkkum min muqaatif yi comme jàkkaarloo way amuru mu koy digal bi an an yati mu dikkin amalan jëf amalan jëf fi zaman mustaqbal ci jamono ji ñëw ene suñ seetantalee feeñal yi nag dañuy fekk nag kii wax ki si feeñal yëpp da ngay seetlu kii wax mooy sàkku si kum jàkkaarloo mu dikkee jëf joo xamante ci jamono ji ñëw comme il en fool waxul ko mu waxul ko mu comme foon na pare wala muy foon ne nan ko fool fool ci kanam ci jamono ji ñëw wa min ajli zalik loolu nag ñu soma dañu tuddee kulli fen bépp fen min azal afal seeni fen fen amul fen lu giy digle loolu tax nag ñuy fen li loolu tax comme il fool yooyu loolee tax ñi tuddee fi'lu yi ni fi'lu amr mooy fi'lu gi dëgg fal fi'lu fal fi'lu ilaa fi'lu ilaa fil misaal awal bu njëkk bi yatlubu day sàkku bi yatlubu day sàkku bi si moom min xaate bi si ki si ki jàkkaaro itiyaan ilaa itiyaan ilaa bi dikkee fa fi zaman mustaqbal si jamono bi ñëw léegi suñ jëlee fi'lu ilaa si misaal yi njëkk yi mooy kii wax dafay sàkku si kum jàkkaarloo dikkee foo pour mu foo si jamono ji ñëw waxugu mu foo ah mu foo ko mu foo na ba pare mu foo si jamono ji ñëw digal mu foo woo mbir mi li loolu tax li tax ah, fin am na looloo tax ñu koy ñu tuddee fin am na loolu tax ñu koy wax fin am na wala fin atteem fin atteem nag في المثال الثاني سمجال نيار يطلب لنا الساك به من المقاتل بسأجل وسيكون جاكار له سوري تعامل عمل لها في الزمن المستقبل سيجابنا به نيو نينا فأول أتم لك مثال ñaaral bi dafay kii kii wax ki mooy sàkk saaku ci kum jàkkarloo mu lexal ci jamono ji ñu daf kaa digal foofu moom li taal loolu tax fi am am aydan ba tey tax ba tey moom tamit fi'lu amr lañ koy woowe fi'lu bi digale waagaza nag yu xaala danañ wax fii a afaali seen fi'lu a des na ko doon lu ñuy wax si atim ak ilham loolu la ñuy wax si ah, misaal yi des dox ci yëpp ay fi'lu amri lañ asaabiqatu yu jiitu alqaaidatu lii mooy tënk bi fi'lu amr fi'lu amr jëf muy digle woo moom kullu fi'lin mooy bépp fi'lu yatlubu bi sàkk itloobu wisaaku bi ci moom rasula amal amal jëf fi zamonin ci jamono mustaqbal bii ñëw nee la fi am na mooy jëf gi ah, dara si waaye si jamono bi ñëw dafay sàkku def dara waaye jamono ñëw kon suñu la mooy fi'lu amr pour tënk nga wax tënk bi ne ko wa kullu fi'lin yutlabu bi husulu shay'in fi zaman mustaqbal si jamono ji ñëw xam nga waxoon na la fi'l maadi ak fi'l mudaari waaye joxul la ay tamarin tamarin yëpp nag la leen xaar ni boole ko mu jox la ko yëpp mu lay joxe tamarin atun ay jëmantule bu njëkk bi al awal iqra jàngale firi dikki wa may nga ràññe al af'aal maadi fi'l maadi al af'aal mudaari ak fi'l mudaari wa af'aal amri ak fi'l amri xam nga dara jàngal fi'l maadi jàngal fi'l mudaari jàngal fi'l amri mu jox la benn taxi ni nee nga nga xool boo si gis muy film maadi nga wax na film maadi mooy jamono ji passé film daara jamono ji teew wala ji ñëw film am na jamono ji digal mooy bii ñëw kon yooyu xam nga wax boo si bu nekk film maadi nga wax ko film daara nga wax film am rek nga wax janaa witt naal fa laaw baykat bi xut nawu katoom wa baaxu mu jaago rek baa rek mooy fi'lu huwa huwa mooy damir huwa mu jaay ko summa staraa topp mu jënd bi ba'di samani lenn ci njëgam maa yataaju lam soxla ilay jëm ci moom suuf xoolal bu fekkee am na fi'lu maadi nga génne ko fi'lu mudaari nga génne ko fi'lu amr nga génne bu fekkee am noonu nasara xool naa tiflu xale bi ila taairi jëm ci picc mi woomu mi xalliqu mi ñuy wër fi samaay si si asamaan si fa xàbbu mu bëgg ay yetee mu naaw mislahu comme moom génneel fenn fenn maadi wala fenn mu daar xabbati ëpp na alawaasifa ngelaw yi laylan guddi faat faat mu fay almasaabi lampi waxtama buddi baadal ashjaari lenn ci garab génne sataa song na azibu tilibaanal garami ci gàtt bi faftarasa mu fàdd waadatun benn farra mu daw xaariban jaaji yoon gannaaw udxul duggal albustaana tool bi wamatte nga xewalal nafsaka sa bakkan bi man ni zari ci xool bu taaru wala tax bul foo bi azaari ci ay fleuram wa simaari yi ak ay meññentam xool génnul fen maadi wala fen mudaari wala fen am na laa tuksir bul bëri minel kalaami si wax minel kalaami si wax wala tantiq bul tudd ma laa taxam si li xamul tu génne ixsir raxasal yadeka sa loxo xablal akli njëkk ngay lekk ba baa diw gannaaw ba nga lekkee wa nazif nga setal asnaanaka say bañ waa tudxil bul dugal ataama ñam ataami kaw ñam xool bu fekkee am na fenol maa di nga génne ci fenol mu daari wala fenol am bu fekkee moom yi ni mu lay wax ni ay ay ismu ngay teg fi'lu dangay teg dangay teg fi'lu ci kanamam ba nga teg fi'lu ci gannaawam alxusnu mooy bànqaas azijaaj bitéel alxalamu big samsu jant alxitaaru terrain albaxru géej alsamaru meññeet al misbaaxu lamp azijaaj mooy bitéel yooyu ay ismu tijal fin la ci kanamam wala gannaaw loo boo si màndak dax tegal xabla kulli ismi njëkk bépp ismi min asmail aate si ismi yi dëkk aw ba'da wala gannaaw fi'l mudaari fi'l mudaari bilaay moom bu dëppoo moom ismi yi dala jox ay ismi tamit dangay teg njëkk njëkk ismi bi mooy njëkk si kanam ismi bi wala si gannaaw fi'l mudaari bu dëppoo moom fi'l mudaari kese nga ci mën a teg nag arriihu ngelaw al gubaaru pënd alhilaalu tërtër alinaahu ndab almisbaahu lamp alnaqru dex alsafinatu gaal alqalamu big bi yaa si dégg feelam bu dëppoo moom si kanam war si gannaaw tamriinu saalisa jibantu ñetteel mu ne doxteg al fi'l al mudaari fi'l al mudaari fi makaani xaali si barab si dikk barab yu weti ni am ay tomb tomb yooyu yaa fay def fi'l bu dëppoo moom alfaaratu janax minal xitti si muus mi dugal ci fenam daara ba dëppam mu alkalbu xaj waraa saabi ci gannaaw boromam dugal ci fenam daara ba dëppam dajaajatu gu jigéen gi kullu yawmin bépp jour al ummu yaay awlaade ay doomam dugal ci fenam daara ba dëppam moom daa فعل ماضيا فعل ماضي في مكان القال si barab wéeti ma eti si dikk barab wéeti ni suñu am ay yaa fay teg fi'il mudaari bu dëppoog moom al waladu xale al julusu toog dugal si fidee maadi bu dëppoog moom al xaadim al ujratu saal bi dugal si fi'il maadi bu dëppoog moom ali na ali ila jëm France dugal ci fi maa ji moom rabion ci jimantu ñeenteel bi jiiti andil bi xam si jumla si juróomi jumla kullu ji ci fi maa ji jumla bu si nekk ba tàmbalee fi maa ji lii ji andil bi xam si jumla si juróomi jumla kullu aajin bépp nekk minaa si ñoom mabduwaatu dafa tàmbale ba fin mu daal yoo xamante ni si juróomi jumla jumla bu si nekk dafa tàmbale fin mu daal it andi bi xam jumla si juróomi jumla fi kul nekk fi kul waa am fin am andil juróomi jumla ni jumla bu si nekk daal na am fin am rek yoo xam da ngay tàmbale ci digg bi nekk na am fin am iti amoo xaamisa jimiltu juróomeel iti andil bi arbaani jumalin si ñeenti jumla kulli nekk na képp mina si ñoom fi'l si ñeenti jumla yoo xamante ne jumla bu nekk dafay am fi'l mudaari waaye fi'l mudaari bi nag dafay am xarafu xarafu fi'l mudaari lay nekk mooy ñeenti xarafu fi'l mudaari anaytu da ngay indi benn mu tàmbali fi'l mudaari bu njëkk bi na am a bi ñaareel jumla bi am am yaa ñeenteel bi fi'l mudaari na ñetti fi'l mudaari ñeenti fi'l mudaari yëpp ñeenti na ko indi konnaŋani nyende feŋ daarum mune okututamaɗenon sadise jurombel ngel okutubina aljumla atir jumla yidike baala tagayyara kullu feŋ gana baga soppe be feŋ baala gana baga soppe kullu feŋ maadi be feŋ maadi fiyasi mum be feŋ mu daarum jebole ko si feŋ mu daarum feŋlo yi ay feŋlol maadi la yi yaaka jël def ko feŋ mu daarum lii la jàngalewu ko waaye daf koy daf dafa koy wax rek pour ngay ñëwant saara mujj na saara dox na alkitaaru terrain bi taara naana alosfeeru ak soxru jégét bi saa mooy picc rek saafara tukki na waalidi sama waajur nazala wàcc na almatru taw bi marida feebar na

aga soppi yóbbu ko ci fi'lu maadi yuxarriru dana way muy dana sabalu suur picc mi yabiu dana jaay taagal commerçant bi albunna kafe yaxsilu dana raxas alwaladu xale bi yedeyhi ñaari loxoom ismiru dana meññi albustaan tool bi tunazif dana sesal albindu xale bi jigéen bi siyaaba yéreem yejni zero huit alfalaaw baykat bi alxud na coton yooyu ay fi'il mudaari la yàq yóbbu ci fi'il maadi def ko fi'il maadi hal istaʿjala al mudaari mudaari fi jumlati aati si jumla yi dikk ilaa fi'il amri jëmle ko ci fi'il amri wat bi nga maas al amru amru gi bi shakli ci maas bi nga ko war a maas yii nii ay fi'il mudaari la yaay sponse fi'il mudaari yóbbu ko ci fi'il amri so fi'il amri nanga maas maas bi nga war a maas wax nañu fi'il amri sukulen kay maas moo tax moom nanga ko maas maas buñ ko maas axtarimu dinaa respecté almuallimu jàngalekat bi yóbbu si seen am afazu dinaa mokkal darsu darsu bi nazifu dinaa setal alisaaxu daale bi aqrawu dinaa jàng fil kitaabi si téere bi astaxilu dinaa soxlo fil xadiqati si jardin bi antiqu dinaa tudd bi siddiq si dëggu yooyu yaa koy yóbbu ci fi'l amr nga maas mujj samu linu saabia jiimantu juróom ñaareel dax tegal kullu fi'l bi fi'l min af'aal aada si fi'l yooyu dëkk si jumlatu mufiida si jumla bu am njëriñ murakkabatin bi toggala salaasal kalimaat si ñetti baat fa ak sara baat ko gën a bëri fi'l yi nii danga dugal ci fi'l koy dugal danga def jumlatul mufiida te dafay nekk ñetti baat ñetti baat lay nekk en tout cas bu manqué ñetti baat ma man ñetti baat nga dugal ko si jumlatu mufiid <coughs> xaraja génn na ko si jumlatu mufiid te mu nekk ñetti baat yalbasu dana sol tastaxriju dana sàkkoo génn taxsilu dana raxas na yooyu yaa koy dugal si jumlatu mufiid mu toggaloo si ñetti baat xaati andil bi xamsa jumla juróomi jumla fi mawdin asadi si mawdon gaynde tabtado dafa tàmbale kul yoo xamante ne ci wàllam gaynde ngay wax te juróomi bu si nekk dafay tàmbale fi'il maadi fi'il maadi da tàmbale ci wàllam gaynde ngay wax xaati andi xamsa jumla si mawdon naxar mooy naxar mooy dex تبدأ بدون تعمل كل جملة بكل جملة بجملة من اسمها بفعل المدارس وفعل المدارس dangay indi juróomi jumla yoo xamante ni juróomi jumla yi day wax nag si wàllam dex ngay wax si wàllam dex kese juróomi jumla yi di génn si wàllam dex te bu si nekk si juróomi jumla yi dafay tàmbalee fi'lul mudaari day tàmbalee xeeti indi xam sa jumla juróomi jumla te amul lay digle fiyaa si moom tilmiisan élève bi xam si amaale si juróomi jëf te tabitu dana làmboo bil madrasati eh, mooy dana ko takkoo bil madrasati si école bi andil juróomi jumla yoo xamante ne dafay dig da ngay digal juróomi ji da yoo xamante ne dana la dana ko su demee école dana ko takkoo mooy dana ko dana ko li jàng dana si xamee dara comme mu takkoo ko bañ kaa bàyyi nga indi si juróomi jumla kon loolu lañ jotoon andi si darsu lu si jub si yàlla lu si dëgg suñu gaat xam-xam na uridu illa islam mastatant wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh